pas-pasu bokkaale pour bëgg soxat lañuy la ba ko bëgg ci bëti nit ñi day tax ñu tay dépenser alal yu dul jeex def ay cérémonie yu reuy yo xam démonstration de force lay doon rek pour nga ne uh xala mbooloo bi xala kaay rek ciu ñi ñi day mo bu adul ci li ñu ne démonstration moom dañ la koy wan pour bëgg bëgg rëyal lañu la jaral na leen dépensé ci alal yu dul jeex perdre temps bo xam ñu doon liggéey te ci ñi liggéey yu kaay ak temps bo xam lepp ñu def ko ci lo xam ne benn njariñ du ci jóge parce que njariñ dajé bo xam ne mënoo ne lii mooy ordre de jour bi mbooloo mbooloo fu ñu rajo dañoo war a ordre de jour am lu ñu war a waxtaane thème boo xam ne moom la ñuy waxtaan bu mel ne congrès ñu am solution yu ñu fa jëlee ne lii moo taxoon ñu daje mais mbooloo mu dañu kër kër kër kër rey ay nag lu ñu dugg ca dem dellu si nga ne ni waaw nag yenn yenn résolution nag moo ci génne ci seen congrès ba et ñu ne lekk nañ naan nañ looya rek ne mooy mooy mooy kii bi mooy kii nag ya daal du jeex ñam ya boisson ba ni la mel loolu loolu rek lañ lañ am na benn waay bu ci amoon benn garabu extérieur bu mu ànd ab tubaab mu ànd ak moom ci xew-xew yu mel noonu dem dem ba xam-xam ne ko xew bi jeex na leen ñibbi mu ne ko ma dama tàmbaleegul ni man gisaguma ma dara de dalaw lañu fenn di maa ngi defe ne léegi tey cérémonie bi tàmbali xam-xam bu leer wala jàngale wala étudier mbiri àdduna bi muy ab congrès boo xam ne dañ naan lii lañ ci génn waa ji ne jeex na nañ ñibbi mu ne ah yëf yi daa tàmbali bay jeex gis nga moom ko logique la jàpp ne ne moom mbooloo fa ñu daje perdre temps bu toll noonu war nañ fa jële dara xanaa war naa am programme bu leer poye yu leer yoo xam ne moom la ñuy waxtaane génne ko lii ko ne lii bu ngeen demee ni ngeen ko def buy ak congrès waaye dañu lekk naan dem rek waaye ñoom la cay seen objectif ca loola mooy wane waaye ña ca bokkul la ñuy wan rëyaayu mbir mi su ko defee eh, yow dañ lay tiital ah yaa ngi foofu peru de waaye yaa ngi dem de <laughs> gaa yaa ngi dem de affaire baa ngi di gën di yokk rek de yow bokkoo bari na ñoo xam ne ca loola lañ cay bokkee ñu woyof pas-pas fu cérémonie yu rëy yooyu amee rek am gaa yu mu yóbbaale ñu dem bokki waaw dem bokki moom la borom bi naan wasari lazina taxasoo diinahum lëhwan wa laiba laiban wa lëhwa bàyyil ñi nga xam ne seen diine dañ ko jàppe ko ak caaxaan waxarat xumul xayaatu dunia dundub àdduna bi moo leen nax bokk na ci la muy jural nit ñi itam nooyal leen ci kanamu ñi leen jiite ne su suñu njiiti politique yii fi mu ne li ñuy dorogee nit ñi yilifee leen ko lépp ci diine lay delluwaat pas-pas bi nit ñi am ci ay nit yoo xam ne jàpp nañ ne ñooña moom ku leen satisfaire doonte ñoom ña ngi déggu xiib yow satisfaire nga leen moo tax nit politique yi dañuy dañuy day yomb ci ñoom dañuy dem ca kilifa ga rek andil ko ceeb andil ko jox koy tool jox ko ba satisfaire ko ba mu jël rajo bi gërëm leen su ko defee ña topp ci moom ñëpp moom doonte ña ngay dégg xiif ak mar bi fi sa xët di leen koy yombalal lool loolu nag kon bu boobaa ñuy jiite politique ba duutuñu góor-góorlu ci satisfaire population bi mais nañu satisfaire rek gaa yooyu ci kaw nit ñi nañ leen satisfaire rek bu ñu leen satisfaire bañ gërëm ne rek a danañ am liñ bëgg au lieu ñu wàcc ci nit ñi xam ne nit ñi kat waaye loolu nag nit ñaa ngi ci yeewu léegi moom loo defal defal seen waaye te defaloo leen itam moom seen bos la ñuy xaar léegi <laughs> seen bos la ñuy xaar parce que dañuy xaw a dee nit ki moom bu sonnee itam nag di daan mbaam bu sonnee wépp loolu loolu la ah yow ba tollu ñu sa sa waaye ngay gërëmaate defal nañ ma lii defal nañ ma te yow gisoo dara gisoo dara yaa ngi bëgg a de ah loolu nag bu yàggee nag kon nga xam li ngay def. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Allahu wahaabu yaa rasaaqu yaa maliki li tawahab ya warsuqni ku ne ana dayqi azilan ajilan bil bisi muhammadin xata ukima ni diini lahi arkana yasir juwaani li tuuba waxmini waqini adal wara watudib bisa miskana سبحانها والآدي والنحو بها مشاركين يرد ما أمسكنا أجيب وصلي بسم الله حسن محمد لي لباء غمضانا سبحان ربك رب عبد المسؤول السلام عليكم سيدنا والحمد لله بحمدنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من الشارع وعلى وعلام تحدي واعتبر هي الشارع سفيان كي لشارع كي كي كي كي كي كي ak jur ñëpp ci wéru tëdd yi ak weer yi yi ñu yëpp rek muy wéru safar safaru xuruj di leen ci di kenn di kenn yàlla di leen ci ragal di ñaan yàlla mu nekk namu lislaam ci kaw yé yéefar yi xam naa mu du di afam ab audio bu ñu def bu ñu def bu diw sàngam ci ci salafiste yi xam naa ginnaaw tuddut euh, suufiyanke yi direct tuddut tarixal muridee direct kon yi doo tudd turam kon waaye mbokk la woon ci tarixa bi ci la judd al ci la juddoo ci la léppoo wax nañ sax ne ñu ne xam nañ ko sax wax nañu sax am nay dongay murit ba noppi am dongay sëriñ bi sax waaw bagage yi bàyyam yoroon sax ci xeeti la sax sax mujjoon na ko soxla woo ci mujj ñu ko xam jëflante moom dégg naa ko ci ñoom ñu ko wax waaw kon kooka lu ca mën di am loolu lépp moom mbiram ma waaye lu ca mën di am ñi nga xam ne moom lay wasfa magal gi loolu wax dëgg yàlla du waaqe nag bu dee bu dee nee na po indi ay ay xam ne yàlla mu koy wax ci yëfar yi dañoo bàyyi ñi nga xam ne dañoo jàpp seen diine po wax dëgg yàlla xam naa kooku jombar la li hmm, ñu yëfar xanaa xam naa ñoom ay yëfër lañ ci ñoom xam naa salafis yi ñoom attan yu jàgg wax dëgg yàlla xubur yéen ñuy tuddee ay kofaar ay musiku nag lépp tudd nañu ñu ko ñoom bu yàgg yàgg ñu nag Chine yi moom noppi nañ Chine bu yàgg loolu moom yóbbu taxawlu kon ay yëfër yi kon la këpp suñ kaw waaw waaw waaye loolu moom ginnaaw ñoom. moom moomuy diine moom loola am lu am solo lool xam naa ju jëmbut koo xam ne daa daa am lu lu muy mer daana leer ci ci kanam ndax wax yi mu wax rek mel na dafa dafa juunu dafa wut ak waaqa benn bi nee na eh, yàq gi ci am économie bi xam ne mi ngi ci màbb daal nga xam ne moom ñun ngi liggéey def ñu dara bis yooyu bu dikkee ñu mobilisé ñun ñëpp yóbbu leen Touba te dëkk bi waaye Touba yoo xam nga koy wax si siyaq siyaq siyaqul kalaam contexte bu wax ja loolu lay jox yor nañu mu ne mu ne amul amul lenn luñ fay programme jëm ci diine buñ fay wax ko fa ñëw ba ba dem doo fa jëlee dara indi ci misaal sax tànn bi ku jógee extérieur kenn ci ñëw ci ñu woon ko ci rajo yu mel xam naa ko mën naa am ci beneen beneen gox la ci goxi suwenke yi ci ëtti suwenke yi nee na bu ko wala sax muy naa am ba tey da ko lëm rek nee kii bay bay dem kooku laaj ba xam ndax yëf yi yoon ñoo ko yëf yi jox na ma ah ma yaakaar ne kon tàmbaliwul berle gi ci ne moom berle yi am na solo waaye gisu moom gisu moom dara ana ci mbirum waxtaane dara loo xam ne mbooloo mi ku leen woo xanaa da nga leen da nga teg ci sa loxo dara loola loola te yaakaar naa rawdu raaxiin seen waxtaan yi ñuy def di berneel roo yi rawatina ren forom bi ñu defar def ren nañ ko ay yoon ay ay ay forom forom bi ren bi ci wax contribution kër yi diine yi yi ci almasabul maliki yi loolu loolu woo ca Mauritanie woo ca Maroc woo nañ ca Maroc woo nañ ci ci Mauritanie ñu def ay communication yu am solo waxtaan yu am solo yoo xam ne buñ ko moolee sax génne ko sax dana am solo lool um, ba ci Ibaadu Rahmaan seen njiit li sax teew na jël fa kàddu rafet lu lool yëf yàgg ak ñi nga xam ne mag ñi ñi lañ dëppoo ci masawul malik yi nga xam ne loolu njëriñ njëriñ muy indi mooy ku mel ni saawaaj yi ay moroomam duñ bëri wuute gi wuute gi nga xam ne waxit njëriñul ñàkk wuute gi li muy jëriñ société bi réew mi duddi bi ñu am asilmul ahli nga xam ne jàmm jàmm mu am nga xam ne nit ki dana mën a mën a dund la mu gëm ci jàmm salafis yi bu boobaa dinañ ma dund dund ci jàmm suufiyanke yi dund ci jam suufiyanke yi ñoom ci jàmm lañ mos a dund ñoom ñoom moom ñoom ñoom mosuñoo dund ci ndax seen xol naxut seeni làmmiñ naxut seen seeni cër naxut ndax ñoom eh, al ihsaan la ñuy dund moo tax la ñuy a dund kon loolu moom eh, penc yi fu ne raw def nañ fa ay penc yu bëri boog programme nañ fa ay waxtaan ci ëtt yi mag ñi yaakaar naa plateau yi yi ñu def ci télé yi télé yu ñëw nañ mobilisé wu plateau yu bëri donte ne nag plateau yi du Eh, lépp eh, tegoon ci yoon ndax ndax plateau yi eh, ko de day jafe moom waaw ndax télé yi bari nañ mbooloo borom xam-xam tiggi ñu fa mën a yónni dana xaw a jafe te it kenn ku ne da ngay amee gan ak yu mel kon kon moom loolu moom ko mu wirut am nañ am nañ am nañ benn xitaam bi ci forum ba bu am solo boo xamante ne ñi fa teewoon ñëpp eh, seeni xalaat daje na ca kon loolu kon moom mel na kon moom dafa mel ne xanaa da ginnaaw màggal si ko xam naa xam na gaa yi wax ne service yi dañuy dem Dakar dafa màggale si ñu nekk Tuubaa dund ci xéwal sëñ Bàmba gi ba màggal jot ñu génn ñu génn Tuubaa dem màggal ci Dakar ak feneen ngir daal xam naa si seeni xol moo dëddu sëñ Bàmba waaw ah, man zannani xayra ah, xadimil Mustafa fa innani axdimuhu kama stafa axdimuhu ila duxulil janna daari xaraari wal muna wal minna ah nee na man koo jotul lu dul xaadimu rasul rek man day man maa ngi koy liggéeyal rek te lu am tànn te muy sunna te ba keroog may dugg àjjana loolu de waaye nag. waaye lasta alayhim bi bi mu saytir nit ñi de moom suñu tubaab moom leen sala sallam la yàlla waxoon ne ko mu yilifa leen de kon wa moom la ah, nangam day baaxut nangam baax na waaye nag yilifa la nag moomu la doo ab jaamam jurule sax xor man naa kon moom li li mu mën ci ci yow mooy gindi gindi bu bu. fa dakki inafande dikkee fàttalil boo jàppee ni soo fàttalee mu jëriñ loolu moom loolu rek la mursid loolu la wootikat bi ci lislaam di wax waaye waaye yilifa nit ñi sëñ boobu wax na wax na euh, ci kon ne économie bi nee na euh, daal nit ñi liggéey woon def ñu nangam nangam moo ne experts yi état bi dañoo wax nañ ne bu si màggal gi ci la économie réew mi di yëngu tigi yokkute gi tigi ay milliards dana wëndeelu di ko ne xam ne ci économiste yi niñ koy waxee économie xaalis bi wëndeelu loola mooy économie économie li koy doxaloo mooy xaalis bi yëngu waaye du ne nekk ci banque yi màggal gi nag xaalis xaalis yi dañ koy wax mu wër fépp sunu mbokki baykat yi bu magal gi dikkee ñu indi seen seen sareet yi lañ ci am liñ ci am ci rendement wax nañ ni ñoom kat moo ëpp li ñuy am ci nawet bi ñetti weer yi nawet bi ñetti fan yi magal gi ay ci magal gi lañ ci am moo moo ëpp foofu loola gën a noppale ci ñoom jaaykat yi maa ngi gis benn gidd touristique boo xam ne ñu ngi ko liggéeyee Angleterre di wax bisu màggal gi nanu màggal gi Touba eh, dañ koy tere sol lu gàtt eh, dañ koy tere sàngara toog cigarette daal di wax nag ne eh, bis la boobu xamante ne solo la boo xam ne marché bi rek lu waaye di bëgg a jënd foofu bu fa demee ma dana yomb te ay anglais ko bind am lu am solo loo xam ne noonu raw rahim maa ngi koy ñaan mu ne déwén wala yooyu ñu waxtaane ko def ko tem al muharramaat yi nga xam ne lu mel ne sàngara lu mel ne carte lu mel ne ne doonte lu mel ne toox yooyu yëpp Touba gi ci adduna bi yëpp yëpp yëpp fi lañ ko jëkkatere Makka ma Madina Touba lañ ko jëkkatere ay at boo demee ba quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-six dem naa Makka Madina xaram ba rek rek rek jubi xaram bi képp li bind ay tableau naa fii kat dañ koy créé moom na wax ko jiitu woon photo yi yi nit toog ci buntu xaram bi ci escalier yi yor cigarette Tuubaa yooyu yëpp ñu raxas ko fi xam ne mooy mooy bir sent boo xam ne ci lañ njëkk a yooyu yëpp yëpp yëpp loolu ku ne xam na ne dara la loolu ku ku ku ne xam na ne liggéeyal lislaam tigi la ku ne xam na ne ne ak ak avancement la ci wàllu ñi di sax faro ndax euh, ginnaaw Tuubaa ci la ko euh, ñëpp di di di tàmbali def ba ci tubaab yi waaw Angleterre daal di ñëw bokk na ci ñi ci jiitu ci ci Europe tox ñu dem ba ci ba ci hôtel yi ba ci amaakina xam yi yëpp waaye tubaa ci jiitu loolu taw doyen war nañ cee def document bu def ci ay waxtaan ba ba xam ne ah suufenk yi yi day ñoom ñoo jiiti loolu ci adduna bi ñu ñu ñoo dëkk setal gox yi ci luy lor doomu aadama moo xam ci ruu moo xam ci ci yaramam la kon moom. loolu moom euh, bu dee économie bi comme kon leer na bu dee ci wàllu diine ji ji leer na sëñ boobu moom sëñ boobu moom sëñ boobu sëñ boobu moom waaw moom ginnaaw dafa génn te mi ngi dundee kat yoon wi ndax li muy am lépp daaraam yi li koy financé kat ci ñàkk dongo yi la dongo yi sëñ Bamba yi waaw ci lay dund de am naa ci dóor ci ñu koy financé ay taalibe fii lañ te moom it mi ngi nax ay nit doon na seen sëriñ ne ay ne murit la ba noppi te du murit waa ginnaaw moom mi ngi ci biti oustaz Alioune day wax lu am solo politiciens yi naan fii tëli biir wax xarafee tuñ na nanga sax tey ko ja waaw moom bu toogoon ci suñu biir rek for lu mu gis ci loo xam ne war naa ak buñ defoon nanga mu gën mu ne nanga mu gën ndax adduna moom du du mat sëkk xanaa xanaa xanaa mu jug jamono xanaa waaye adduna moom yent yi ñëw dañ fi ba dem te risaala la bi appliqué gi ko war a appliqué matut ci yi ñi ndax munaafiqiin yi da nga dem Madina fekk fa suratul munaafiqiin munaafiqiin yi ca ca biir jullit ñi lañ munaafiq doo biifar ca biir jullit ñi nga xam ne ci yonent bi alayhi salaam mi ngi ci kaw suuf naafiq yi wër ko di ko yàqal wala di ko jéem mu yàqal kon moom kon moom du mat kon sallallahu alayhi mu mënu ci ñoom dara noonu rek la waaw kon moom téemoo jéemoon a ah foofee mu nekk ke gox boobee ci wetu tubaa la fa la dëkk moom xaw ma ba xam fa lay magalee ndéet waaye téemoo magale woon foofa daal di def ay conférence yu mag. ah sëñ bi day lii day aydu shukru la shukru lillah muy lu annonce annonce bu tëdd man de yàlla nattu na ma ay nattu ma di ko sant loolu la sacrifice la bu mag loolu njàngale mu rëy mu'min bi war cee mën a jël ay droge kii de sa mu'min la borom bi taala ko ay nattu mu muñ ko sabran jamilan muñ goo xam ni sax da koo firndil ci ne nattu yooyu lay sante yàlla sante wuma ko ci dundu gu neex dund goo xam ne xéewal yi yi dama war waaye dundug xalwatu buñ ma buñ ma yóbbu woon xéewal ya ma fa amee loolu lay sant yàlla sëñ bi loolu lu ama am solo la lu kawe la noonu africain yi soxla nañ loolu soxla nañ soxla nañ loolu soxla nañ euh, yooyu duruus ñu mën koo jàng ci màggal sant yàlla sant yàlla ci nim ñu melal sant yàlla ci lim ñu may ay eh, waaye lim ñu may nag sunu mag ñu baax ñi di Cheikh Ahmadul alxadi Cheikh Ahmadou Al ma ba jeexu Cheikh Ibrahima Niass Baye Niass suñ Mbakki Bousso suñ sañ Taro sañ Njaay suñ Abdourahmane loolu ñëpp rek ñëpp rek mag mag ñooñu nga xam ne def nañ dara Cheikh mo Cheikh Ahmadou Chahir Mbay te Louga gaa yu tedd yooyu xam ne def nañ dara de liggéey nañ leen nañ lislaam yooyu ñu téye ko xam ne ñun yàlla may nañ dara yàlla fàttewuñ de gaa yi fàttewuñ de ñu téye suñu yooyu gën koo ñoŋal lañ gis uh, bu usoo mbub ma faggee ñu ñu ne ah teñ koo koo faxas teñ koo teñ koo fëgg bu jaree nag ñu dugal ci ndox rocc ci ñu def bu jaree ñu dugal ci ndox fóot ñu def bu jaree sax ñu dugal ci ndox nag settali ba tey ñu settali waaye lépp mbuum yi ne fi rek kenn du xëcc kenn du xëccoo kenn kenn du xotti mbub mi te xam ne mi kat mooy sunu mbalaan mooy sunu kiiraay loo xamante ne ci la ñuy suturloo ay waay loola loola buñ ko defoon dana baax de waaye di sànni xeer yoo xam ne da nga yëg ci ci wax ji ne boroom ah xol ba jeex na de dégg nga mu naan waaw démonstration la ñuy def mbooloomu mu bari mi kaar yi ko ku ku ku pas-pasam kii daal ne ah gars yi kat ah gars yi gars yi ña ngay jokk de ña ngay avancé de ah continué dem ah sëñ bi day avancé moom wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ah noonu de ba ñu xàmmee ba tey juróom fukki at yu ñu xàmmee mi ngi nii rek de moom sëñ bi yokk moom wax wax wax dëgg yàlla loolu de ba mën a si su su su dara nag moom waaw ñi nga xam ne nag day day noonu. sëñ tubaay suñ lépp mooy suñu yaakaar fii ak fan jëm ah noonu day ñu ngi bég noonu suñ xol yi sedd waaw ah saxaada dafa dafa dara yi nii jëm digoon ku jëfandikoo wérdul maxuus wii al maxuus min allahi waa si ti rasulillahi sallallahu alayhi wa joojee day ah moom day wax dëgg yàlla saxaada dara yi moom ñu ngi koy dund noonu wa umri ila jiyaani ay du jëm waxoon ca boppam ah dugal dugg nañ ci ci ci biir de noonu day noonu ñi ngi dund suñu xol yaa ngi dund ñu feex kono kono gis xam ne noonu noonu ñi ngi ci saxaar def dara ñu tigi ah bi luñ ci mën noonu waaye luñ mën ci yokk gi yàlla ñu koy def de murit gi sax dëgg yàlla góorgóorluñ buñ góorgóorlu woon kon bi Afrique jëpp jël nañ ko kon adduna bi dugg nañ fu ne laa ilaha illallah wax ji am na solo de ci man dinañ ko jël ay durus Moustapha da eh, na na raw du Ibrahim sëñ boobu dëkk boobu boobu mu ne mu ko di mu ngi mu ngi fii ci wetu Touba rek na raw du Ibrahim eh, daal di def xam la rek jóg di dem organiser fa ay muhaadaraat ci safar gii ñu jëm yàlla yàlla te jigi ko def fa ay muhaadaraat yu kawe dem ca biir dëkk ba ca gox ba. xamal ne leen ñun de sëñ Tuubaa ngi nii daal kon moom xam naa sëñ boobu xam naa euh, daa am lu mer wax dëgg yàlla bu dee am na lu mer it sëñ Tuubaa de xanaa ndax ah naa ni job la xam naa mu'min ji moom wóoruma waaye muslim ji de moom jàppee naa ko ko muslim la noonu sufiyànke yi noonu ñëpp lañ xajoo géej lañ lu wa tilim tilim lu ndox nax nax lu nit di wéré di wéré di lu lu lu jëmm manki manki bu duggee ci suñ biir mat set wér nax nax gaag tilim gi lépp daal di naaw géej gee ko ko mate yaatuwaay ba baa tax sell gaa tax tedd gaa tax kon de ko kon sëñ de moom wax dëgg yàlla bénéfice dara nag moom dara lañ ci mën déwum nun de wax dëgg yàlla yàlla ñu dugal ci gaal gaalam ngoo xam ne day wéy te te du taxaw yàlla mi mi mi aar moo koy moo koy aar la la Cheikh Mohamed El Fadel waxoon yàlla na ñu dal waaye yàlla ñu dal ndokk kaar bala cee gib ñu dugg ndokk ba ñuy murit kaar bala cee gib ñu dugg ay waaye ndokk kaar waaye ndokk kaar ndokk kaar noonu yi day dokk ñoom ñoom de duñu toqi mukk دوغ في بير الاسلام بكو ياخ وايي دنج كو والله متم نوره ولو كره الكافرون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته